ba Ivan di juddu booba xam naa guñ donc am na lu ñu xam ci Ivan am na lu ñu xamul occasion la aussi pour ñu ñaanal aussi suñu ñi nga xam ne àndoon nañoo ak ñun bokkoon ci ñi créé woon association te yàlla def tey ñu jiitu ñooñu la ñuy ubbee sax euh, manifestation yi defal leen ay ay ñaan dina am ay sensibilisation yoo xam ne dañ koy def aussi pour population bi xam lan mooy ASC IFAN xam aussi seen njëriñ ci société bi parce que gis nañ ne jamono jiñ toll fi mu ne nii société bi dafa commencé di yàqu ñu perdre ay valeur dina am ay sensibilisation yu ñuy def pour jeunesse bi ñu xam euh, lan moy sen cër ci ASC bi lan mooy seen cër ci dëkk bi ak yeen taxaway la wara mëna taxaw ci dëkk bi wërgu-yaram bi aussi amna journée consultation médicale boo xamné ne nit ñi dinañ ñëw ñu faj leen te duñ fay dara waaye ci biir loolu aussi ñu bari dañoo yaakaar ne feebari covid 19 bi jóge na fi te ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne ba léegi ñekkooguñ ut nañ ne suñuy vaccin ak lépp pour que ñi nga xam ne mosuñu ñekku aussi ñu oo leen ci dispensaire yi ndàngaan ñu ñëw ñu ñekk leen ñi nga xam ne dañoo ñekk woon benn dose mu manqué leen deuxième dose aussi ñu ngi leen di ñaan ñuy ñëw foofu aussi pour que ñu dox leen deuxième euh, dose bi loolu yëpp am na ay xale yoo xam ne ñu ngi jàng ci école yi yoo xam ne def nañ ñaari composition ci ñaari composition yi gis nañ taxawaay bi ñu taxawu léegi aussi ñooñu dinañ leen o jox leen ay neexal pour motiver ñeneen ñi aussi ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi parce que société bi ñu toll fi ne nii njàng moom moo ko lal il faut ñu wax xale yi ne dañoo war a jàng te gis nañ ne jamono ji ñu toll nii xale yi dañoo xaw a négliger njàng mi te njàng moo nekk li nga xam ne moom mooy suqali réew. waaw koppar gi ñu ngi ko xayma ci fukki million ak ñaar diggante fukki million ba fukki million ak ñaar waaw jamono ji toll fi mu ne nii nag eh, boucler guñ budget bi. mais am nañ yaakaar ne euh, incha allah fii ak euh, tey mbaa suba dinañ boucler budget bi lii ñu organiser nag dañ ko organiser pour waa Kaolack yëpp IFAN moomu ko. xanaa njiitu réew mi wala soxnaam dina ñëw fa leen dëkk. ah waaw njiitu réew mi euh, ak soxnaam fa lañ dëkk soxnaam fa la dëkk mais njiitu réew mi moom am naa yaakaar ne mën nañoo ànd seeg soxnaam.